mbirum assainissement ak mbirum inondation di wéy di indi ay jafe-jafe ci dëkk bu sell bi di Touba daanaka dëkk bi lee bu enregistré ay taw yu xaw a takku dëkk bi kenn du am fenn foo teg sab tànk loolu lee moom moo xew ci guddig ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub septembre bi ñu génn jàpp ba cëgu fanweeri fan toll ci juróom fukki millimètre ak ñaaroot ci dëkk bu sell bi di Touba nga xam ne nii ci lañ amoon yaakaar ñu daal di évacuer ndox yi nga xam ne nii moom moo bàyyeekoo ci centre ville bi man koo tasaare ci yenn ci gox goxaan yi nga xam ne nii su demee dina ko naan nag tax askanu kër ñang nag ay kër yu ca bare ba daal di daanu yàlla baax sax ne ñenn ci askan wi ñu ngay fësal ne bakkan mënoon na faa rotee ba tax nag ki nga xam ne moom moo di sous préfet bu ndaam ànd ak waa ONAS ak waa ministère du renouveau urbain ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di sapeur pompier dem daal di masaw ñi nga xam ne ñoom ñoo di njaboot yooyu de dëkkee ca Touba Kër Ñang inondation bi tax na ba wër nañu ànd euh, de l'hydraulique de kii euh, pardon euh, du ñëw nañu ak waa ONAS ak waa sapeur n'est-ce pas même état-major bi sapeur euh, sapor pompier yi ah, nañu dépêché nañu benn seen benn ndaw mu ñëw teew ak euh, ñi nekk fii yëpp daal ànd nañu aussi ak euh, maire bi mairie bi xool nañu gis nañu ni dëgg dëgg dëgg jafe-jafe am na ndox mi bare na kër yi bare na am na ay borom kër yi bàyyi seen kër. dem ñu dalal leen feneen te loolu tiis la. moom sous préfet bu ndaam nag dalal xel yi. waaye la nga xam ne ni yëkkati na ko ni ay kàddu daal mooy jafe-jafe yooyu daar daar nguurug Sénégal jugul ngir fas ko kon daañu xaar lu mat ñaari at jàpp ñetti at ngir Touba mën a am assainissement boo xam ne nii jàppees nañu assainissement bu mu yellool la. l'État a déjà le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement a lancé son programme d'assainissement ici à Touba donc s'il plaît à euh, trois ans. ça tout ça ces problèmes d'inondation euh, seront un mauvais souvenir. ak lu ci mënti am ñi nga xam ne ñoom askan wi dëkkee Kër Ñang moom talooru ci li nga xam ne moom mooy mbënd moom la jamono ji xam ne ni moom la ñu dëgmal seen bagage yëpp dañoo yàq waaye itam lépp li nga xam ne dencoon nañ ko ni ab dund jamono ji lépp a naax saay ci biir ndox mi jamono ji nag ñuy woote ndimbal ci nguur gu Sénégal ak mbooleem kilifa diine yi nga xam ne ñoo ngi nekkee ci dëkk bu sell bi ci Tuubaa kon ñu ngi ñuy lor ñu ngi ñuy lor bu baax a baax a baax parce que lu mat 80 kër wala 90 kër ñu ngi fi ñoo xam ni nii tey kenn amul foo fanaan kenn amul foo lekk te kenn desewul dara te ñu ngi nii war a màggal dugg si màggal Tuubaa war a màggal suñu kër yi amuñu fu ñu dugg suñu miir yi daanu na suñu matériel yëpp yàqu na suñu bagage yëpp yàqu loo bi diggante xur bi ba ci ginnaaw lu mat 200 mètres lu mat 280 90 kër yoo xam ne nii ñëpp a génn moo fi nekk dégg nga te gisuñu lenn aide amuñu dara ndox yaa ngi suñu kër yi ba tey ji ñu wax ñi ba tey jii ñu taxaw fi di wax yéen ndox yaa ngi suñu kër yi benn benn pompe wala ñaar moo fi nekk di liggéey depuis deux di dem ak a taxaw nag